Faye. présenté waaw man de Cheikh Amar lañ may wooyee euh, nekk ci cellule communication bu Touba ci kanam. Euh, Cheikh Amar ñu bëggoon a xam tuuti rek nga ñëwaatal ñu l'initiative bu Touba ci kanam fan la jógee. waaw initiative bi ah ci ay reportage yuñ doon def gannaaw buñ constaté euh, yu bëri ci dëkk bi yoo xam ne jàpp nañ ne dëkk bi yeyowu ko méngoowu ko ñu koy ñuy alerter kilifa yi euh, moo xam euh, encomprement voie publique bi moo xam rond yi nga xam ne niñ ko defaree baaxul moo xam moo xam moo xam daal reportage yooyu nag ci la euh, Fallou Ndiaye mi nga xam ne moo njëkk a jiite Touba ca kanam créé groupe whatsapp reportage yi man maa ko daan def créé groupe whatsapp dugal ko ci tuddee woon tuddee ko Touba ci kanam bon mu kilifa guñ xam aussi ñu intégré la nga dugg ci biir ñu wan la image yi nit ñi muy yaatu ba ñëpp constaté ne baax na di dénoncer baax na di alerter mais autre solution nag mënta ñàkk ci la ñuy demee di seeti kilifa yi ba dem ci Serigne Abibou moom Serigne Falilou fekk boobu mu ngi ci biir di constater lii ñëpp di constater déjà génne xalaatu ne lii ngeen di jàmbat yëpp buñ matoon 2 millions de brut bu kenn ku nekk doxee 1000 francs weer wi day doon ñaari téeméer ñaar 2 milliards at mi 12000 la dikk di 2 milliards ci wi di 24 milliards ci at mi 24 milliards ci at mi <coughs> yii ngeen di jàmbat yëpp ngeen saafara ko ci moo xam lëndëm gi moo xam tali yàqu yi moo xam moo xam donc après nag finalement Touba ca kanam jël euh, message boobu porté ko moom Serigne Abibou mu Serigne Fallilou di responsable moral bi Serigne Abdou Lahad moom Serigne Abibou di jëwriñam topp ci moom Serigne Abdoul Fattah Gueye di président gannaaw bi mandat euh, Fallou Ndiaye fondateur bi bi mandaam jeexee Serigne Abdoul Fattah moo fa nekk actuellement. mën nañoo jàpp ndax Touba ci kanam am nañu relation ak état. waaw Touba ca kanam ñoo ñàkk relation ak état xam nga état mënoo nekk ci biir état bi lañ bokk Touba ci biir état bi la nekk ay sénégalais lañ comme ñëpp waaye daf di rek euh, boo fàttalikoo John Kennedy daan na wax ne balaa ngaa laaj lan la sa réew di def pour yow yow waxal lan ngay def pour sa réew ba noppi euh, lépp lu ñuy def te état bi war cee dugal loxoom. dañ ciy dugal seen loxo bu fekkee ne loo xam ne dañ ko war a faciliter bu fekkee ne loo xam ne euh, pompe yi ñu mujjee jënd par exemple pour euh, forage yi paanoon fii rek euh, bi ñu ko jëndee fekk ci confinement bi la woon ci saa si la ñu oo le ministre de l'intérieur ci saa si mu def autorisation bu 10 jours pour ki nga xam ne moo warul indi pompe yi donc munoo def dara te état bokk ci kon li ñuy def état xam na ko yëg na ko te it nag mënu koo ñàkk bañ a yëg quand maire bu Touba aussi ñoom la sëñ bi denk dëkk bi mënoo def dara fii te waxu ñoom Touba ca kanam bi mu juddoo rek liñ njëkk a def mooy dañoo dem toog ak mairie bi waxtaan ak moom balaa ñoo def dara it comme projet bii ñuy waaj nii ba ci làmp yi ñu jëndoon doon ko def ci dëkk bi dañuy dem parce que éclairage public compétence su euh, maire bi la aussi il nga dem ci maire bi waxtaan ak moom bu ñu demee waxtaan ak moom mu jox ñu ay technicien jox ñu ay jox ñu nesel ñu ànd di liggéey ensemble ba ci lii ñuy def nii donc mënuñoo di def dara ci dëkk bi ki ñu koy defal ñim dénk dëkk bi ñuy réeroog ñoom wala ñuy bañ waxante ak ñoom noonu maire bi aussi amuñ benn problème ki jiite maire bi aussi ci membre Touba ci kanam yi la bokk. ñu gis ne boobu ba léegi jëf yaa ngi wéyandi ñu bëggoon a xam rek euh, projet bi nga xam ne taxawoon ngeen ko pour plan de d'assainissement bi naka la mën nar a demee suba nekk bis bu njëkk bi. waaw xam nga constat la boo xam ne ñëpp dañu ko def bu yàgg. bëri na ay mbedd yoo xam ne bu nawet jotee kenn du fa jaar yaatu na lool ci dëkk bi ñu constaté aussi ne euh, fii ak fukki at màggal gi ci nawet bi lay tombeel euh, Touba Ca Kanam waxtu wu jot dafay réfléchir ci euh, yi nga xam ne jàpp nañ ne priorité li ci biir dëkk bi ci lañ xalaate ne war nañoo jóg ci ndox yi di taa ci digg mbedd bi daaw ñu jëndoon lu ma presque lu toll ci cinq cent et quelques camions suuf ngir dem fépp fu mbedd di taa ñu waxi ko ba mu set wecc sëkkaat ko ñu ne ren nag nañ def lu gën ren nag ñu fas yéene def ay solution yoo xam ne d'urgence lay doon mais durable nga xam ne day amaale ay ouvrage yoo xam ne nii dina mën a drainer ndox mi ba dootul toogati ci kaw tali bi di ko di baare nit ñi ba kenn dootu ko mën a traverser kenn dootu mën a waaw programme bi bi ñu ko bi ñu ko sumbee xam nga Touba ca kanam ni muy doxee aussi lenn luñ ci nekk euh, dañ ci am ay spécialité ñoom aussi dañuy am commission bu ñu nekk comme ingénieurs yi euh, kenn ku ci nekk ak branche ba nga xam ne ci la sa xam-xam màcc ñoom ñoo ñoom ñoo wër dëkk bi ñoo war dëkk bi euh, def relevé topographique yi def point bas yeeg lépp ba remarqué ñaata point bas ñoo fi nekk ak fan la ndox miy jógee ak fan lay jaar doog ñëw proposer ay solution solution yooyu nag bi ñu ko téyee ci la ñu doog dem ci sëriñ bi yëgal ko ko jox information yëpp par la suite la ñu woo sëriñ Bassirou moom sëriñ Abdoul Khadr daal di daal di rafetlu li ñuy def ba pare jox ñu ndigal ñu tàmbalee ko ci euh, arrondissement bi parce que foofu xam nga mooy entrée principale bi te saa bu tawee tuuti rek ñëpp ci benn voie bi la ñuy jaar muy am ay accident ak yu mel noonu Euh, bi ñu àndeek euh, porte parole aussi bi ñu joxee ndigalal sëriñ bi dafa woowaale aussi yaa ngi laaj état sànq ñi nga xam ne aussi mënoo def lu mel noonu te ànduñ ci ak yow muy Ageroute di ONAS bu dee wàllu talibé la Ageroute moo ko yor bu dee ONAS euh, ñoom ñoo yor assainissement bi ñoom aussi bi ñu ñëwee ñu exposé leen technicien bi ngañ dafa nekk su le terrain xëy na moo tax mais moom moo waroon toog fii expliqué leen bi ñu exposé Euh, li ñu nar a def ñoom ci kanamu Cheikh Bass ñu reconnaître ne ñoom aussi lu ñu ci doon def it xalaat yi lay doon mun a weesu lii ci li ñu ànd ak ñoom nag démb rek lañ mujj def euh, euh, tournée bu mujj bi moom lay wax sànq ma fari xool point yëpp ñu expliquer liñ ci nar a def kon ñoom it dañuy ànd ak ñoom ci liggéey bi incha allah léegi nag lancement travaux yi moo nara doon samedi bi incha allah le 8. waaw xam nga sëriñ bi daf ñoo jox ndigal ci ne assainissement bi ndox yi taa ci mbedd mi nañ ko ci nañ ko fi jëlee ba pare mu ne Shell bi bon station bi nekk foofu laa boo wax arrondissement nii mu mel maanaam dafa diis ci sëñ bi ni mu mel noonu parce que saa bu tawee da ngay am problème pour dugg te du foofu rek presque mboolem entrée yi nga xam ne ñoo jëm ci biir dëkk bi bu tawee kenn du fa jaar xam nga loolu dafa doy waar est ouest nord sud sëñ bi moo wax porte parole ne ko nee leen lii ñuy def nañu ko tàmbalee fii ci arrondissement parce que foofu daal ni mel mbedd yi sax ni mel métti na ko lool rawatina fii nag donc ci la Cheikh ñu ñëwaat jox ñu ndigal loolu projet bi dooree ba tey gis nañ ci leneen lu bees ñu tuddee ko jaayante ñu gis ne nit ñaa ngi ciy def boobee ba léegi te li ngeen nam ma def naam ne maire bi war na cee dugal loxoom bu baax ndaxte travaux yi yëpp daanaka moom lañ ci doon xaar ñu gis na yéen waa Touba ca kanam jóg ngir def ko ndax duggal na ci loxo moom Abdou Lahad Ka bien sur parce que toog nañook ñoom ak conseil municipal bi waxtaan ñu exposé que liñ bëgg a def moom it euh, mu rafetlu ko di ci ànd en tant que Abdoulaat Ka kuy jo di contribuer ci Touba ci kanam di ci ànd en tant que maire commune de la ville ak conseil municipal bi déjà joxe na ci cinq mille litres gasoil ak yeneen yoo xam ne nee na bu ci waxtaanee conseil municipal bi ñoom ñooy décider ban participation lañ ci lañ ci indi loolu moom yaakaar naa ne démb bi ñuy def tournée bi ñun ak commune ak euh, Ageroute ak ONAS ak Touba ca kanam ñoo àndoon. non moom loolu moom mënuma ko maîtriser en tout cas jaayante yi ngay wax nit ñaa ngi jaayante fu nekk rek fu ne fu ne parce que ñun dañuy wax ne bu ñu xeep bu ñu yéem ki joxe mille francs ki joxe benn saaku ciment ki joxe ton ki joxe juróomi million li am solo mooy acte bi waaw te loolu vraiment nit ñaa ngi participer dañuy soññee rek ngir mu gën a yaatu incha allah. ñi nga xamante ni ñoo nekk ci côté Sancane Touba yi ndax ñoom mën nañoo xaarandi bu baax a baax seen mbir ci yëf yi. waaw xam nga sancaan yi dafa bokk ci priorité Touba ci kanam ndax ñoom ñoo njëkk a dem ci sancaan yi pour wane ne am na beneen tubaab boo xam ne nañ ko bàyyi xel moo tax commission sociale bi nga xam ne Serigne Mourtala moom Serigne Abdoul Fattah moo ko jiite euh, dañuy am chaque fin weeru koor dañuy def benn journée boo xam ne dañ koy jagleel sancaan yi euh, di dem di leen fekki di def ay recensement di xool ñi ko gën a yittewoo ci sancaan yi di leen jox ay bons yoo xam ne nii dana doon euh, saaku ceeb dina doon suukar dina doon tàndarma ak paas bi nga xam ne moom ngay delloo ci sancaan yi bu korite jotee ak tabaski dañuy mobiliser ay ay ay yére te dañuy laaj yére yoo xam ne yu bees lay doon tabaski bii rek treize mille pièces dajale nañ ko joxe ko ci sancaan yi te loolu bokkul ak pochette yi bokkul ak mbaxane yi bokkul ak kaala yi ak 12 millions 500 yoo xam ne xam nga bëri na ñuy nekk ci sancaan yi xalaatuñu sax ne mën nañoo am njëgu xar ñu ñu séddale leen ko ba kenn ku ci nekkit boo ci mënul am xarit la nga ciy teg pour am ca xar du doon benn benn problème loolu aussi forme de jaayante lañ koy def bokkul ak 1000 francs yi nga xam ne moom la ñuy laaj bu jotee rek dañuy dañuy dañuy laaj kon sancaan yi waxtu wu nekk fi ñu toll nii addiction d'eau li ciy Touba ca kanam di def aussi euh, yaatu na lool te ci barab yooyu lëkk la jëm ci sancaan yi ñoo ñooñu aussi dañoo bokk ci priorité Touba ca kanam ñu waa tuuti rek ci ginnaaw ndax gis nañ ne jamono ji ñu génn gisoon nañ fa ay agression yu amoon ci diggante ñaari dawalkatu charrette yi nekk fële ca mbaar mbaar ya ñu gis ne kaaraange gi ci wàllum ci nekk ci réew mi di ci dëkk bu sell bi di Touba dafa xaw a manqué loolu ñu bëggoon a xam ndax tubaa ca kanam jug nañ ngir jële fi li nga xamante ni moo di charrette yi te a chaque fois bu ñu waxee Touba rek xel yëpp day dem ci li nga xamante ni moo xam nga daaw Touba ca kanam dafa jënd 1960 lamp 1960 lamp ledd yoo xam ne ñooy taal seen bopp di fay seen bopp kenn du ko taal donc du tàkk toute la journée euh, xam nga loolu déjà opération boobu rek dàq euh, insécurité la parce que où la lumière passe l'insécurité trépasse loolu moom leer na ñëpp d'accord nañ ci ne moom euh, leer fu mu dugg dàq na fa lëndëm indi na sécurité loolu yaakaar naa ne bokk na ci. li nga xam ne mooy euh, li Touba ca kanam def daaw ren aussi danañu jëlaat trois mille ci làmp yooyu jëndaat ko ngir tasaare ko ci biir euh, ci biir dëkk bi euh, sécurité bi nag ñun ñëpp ñoo war a ànd yore sécurité bi ensemble loolu tamit ay sensibilisation lañ ciy def xam ne am na ci loo xam ne xam nga tey mënuloo ruq bu nekk nga teg fa alkaati wala gendarmerie wala leneen donc sensibiliser nit ñi bañ xam ne responsabilité day dépare ci yow déjà ngay joxe information wu insécurité ci barab ba nga nekk bu ko defee saafara ji day yomb loolu aussi yaakaar naa Touba ca kanam mu ngi ci bu baax a baax. Euh, waaw loolu ñun dañoo am Touba ca kanam dafa organiser wu quand ndax fi ñu toll nii euh, loolu aussi xëy na du mën a ñàkk. am na ci ñoo xam ne sax xëy na dañ ko def de bonne fois doon jàpp ne mën nañ faa nekk di mobiliser tubaa ca kanam ay fonds loolu xam nga mënta nekk bu ko kenn ku bëgg a def day day daal di pëccëxoo mais képp koo xam ne nii da nga bëgg a contribuer ci tubaa ca kanam déjà am nañ sunu numéro Orange Money boo xam ne ñëpp xam nañ ko siiw na waaye euh, lépp am nañ page Facebook boo xam ne nii soo gisee lu mel noonu te gi demal ca page Facebook nga wéeru ko boo ko fekku rek wérul boo ko fekkul ci page Facebook bi rek wérul loolu nag ñi koy def dañu xamul ni Touba Ca Kanam organisé ndax mënoo ko def te duñu ko yëg te bu ñu ko yëgee it dañ lay yóbbu ci yoon rek ndax nag vraiment fu nit ñi di jaayantee ngir jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi yow nga taxaw di ko jaayante yooyu loolu moom yaakaar naa ne nemmeeku nañ ko tamit ci montage photo yi nga xamante ne am na bi jaayante bi dooree léegi des ñu gis photo boo xam da ngeen koy baare comme du bind bépp photoom ne joxe na un million gis ñu baare ko ne liy wérul lan mooy waral noonu non cest à dafa am benn numéro boo xam ne dafa amoon confusion ak numéro euh, orange money bi yenn ci orange money yu tubaa ca kanam mais loolu une dame moo ko yor boo xam ne euh, fi ñu toll nii lu ko nit envoyé ci orange money boobu daf koy envoyé à Touba ca kanam soxlawu ci dërëm te xamuñu ko xamuñu nga xam ne toujours da ngay fekk ay nit ñoo xam ne boo amee ñuy njublam am na ñoo xam ne ñu jub la ñuy doon loolu confusion boobu rek la woon loolu du numéro Touba ca kanam. Euh, mais ki nga xam ne moo yore numéro bi luñ ko ci yónnee daf koy yónneewaat ci Touba ca kanam léegi li des xëy na mooy dernier réglage yi nga xam ne numéro boobu day tàbbi ci loxoy Touba ci kanam rek. montage photo yi xam nga am na bëri na ñoo xam ne dañuy def ci Touba ca kanam waaye bugguñu sax ko leen tudd vraiment montage photo yi soññee la soññee ndax fi ñu toll ni di nga gis ku ñu monte foto mu joxe ñeenti million mm-hmm. sëriñ boobu sëñ fal nga gis ku ñu monte photo mu joxe ñaari saaku sima loolu soññeele pour wan leen ne bu ñu xeeb waaye bu ñu yéem li ñuy joxe yi li am solo rek mooy participation bi képp koo xam ne da nga joxe ci Touba ca kanam te bëgguloo ñuy wax sa tur duñ ko wax loolu moom bëri na ñoo xam ne dañuy ñëw ne man de vraiment bëgguma bëgguñ sax keroog ñu ngi def benn émission boo xam ne ni euh, euh, Fallou Ndiaye euh, responsable communication bi mais nit a ñëw jox ko vingt cinq mille francs mu ne ko kaay sa tur moo lànk bañ koo jox turam ne ko jaru ko daal dem yoonam mu ñëw indi vingt cinq mille francs yi verse fii loolu soññee la rek waaw pour wan liñ ñu ne vraiment euh, lii daal ñàkk cee bokk wóorul loolu rek lay tekki non compte bi kenn mënu ko pirater waaye non cest à loolu moom laa la wax sànq ne la numéro bi ñu fi ku waaw loolu moom bu ñu ko jàppee moom jarul ngay sonn ci yoon rek lañ lay jëmee Touba Ca Kanam amul benn secteur bu ñu amul commission boo xam ne loolu mooy seen responsabilité amul ba ci secteur contrôle am nañ ko inspection am nañ ko maanaam bàyyiwuñ benn secteur secteur bu ne rek am na ñoo xam ne ni ña nga fa di def seen liggéey comme ni waa communication di defee seen commission environnement bi nga xam ne nii ñoom lañ dénk projet bi di defee seen xam nga 1926 Serigne Touba dafa wowoon mag ña ca njaareem laaj leen kenn ku ci nekk na nga yëndi ñaar fukk ak juróom-ñett 140 dajale na ci lu toll ci juróomi million période boobu la colonialiste bi doon laaj ci impo matul juróomi dërëm kenn daaw ko jox mais mbir yi dañ daan fanaan buntu kër sëñ Tuubaa kër gu mag pour joxe 140 yi am na ñoo xam ne dañuy joxeel seen wayjur yi jiitu ak seen maam 140 yooyu bi si bi si bi sëriñ bi dajalee lu toll noonu dafa leen ne ndax da ngeen jàpp ne damaa yittewoo xaalis bi mag ñi ne ko déedéet Mbàkke mu ne damaa bëgg bu ëllëgee lépp lu ngeen bëgg a defati ngeen def nii ndax damay bañ ku leen mënal sañal leen nga xam ne moom mu indépendance économique. la njëkk a jox mburu yi parce que yoon wi du yoonu xaaraate kenn ku ci nekk da ngay indi li nga am am na ñoo xam ne seen doole lañ am am na ñoo xam ne seen métier lañ am am na ñoo xam ne seen xam-xam lañ loolu la ñuy indi ñu boole loolu yëpp loolu moo tabax jumaa ji jumaa ji bi ñu koy defar benn ñi ko doon defar seeni kër ay sàkket la woon seng sax lu jafe woon la sëñ Modou Moussa tabax jumaa ji raay bi aussi 1500 personnes ñoo ko ñoo ko rëdd raay bi bi ñu bëggee def raay jumaa ji dañ ne raay bi mënu cee ñàkk te raay moom fàtt na commercial la woon tubaab yi jàpp nañ ne fa ñu waroon yóbbu raay yóbbu nañ ko fa yéen nag bu ngeen fayee ñu indi leen raay sëñ Modou Moussa waxaale ak ñoom ñu teg ko condition yoo xam ne nii 1500 personnes lay doon ouvrier yaa ngi ci biir ingénieur yaa ngi ci biir kenn ku ci nekk ñu wax lañ lay fay par jour ñuy togg lekk yàpp la ñuy lekk parce que 400 kilogrammes de riz lañ daan sóor ci ñaari weer ñaari at ñaari at ak ñeenti weer ci la murid di gasaraay bi am na ci ñoo xam ne bu ñu leen fayee lañ leen fayee dañuy wëlbatikuwaat dem jox ko àddee sëñ Modou Moussa ci la ñu bi xam nga ne ci histoire humanité askan wu gas raay cinquante cinq kilomètres mosoo ko gis ak seen propre loolu mooy philosophie yoonu murid loolu tax aussi Touba ca kanam loolu rek la indiwaat ay ca murid jóobi ñun lépp nii ñu tabaxee jumaa ji nii ñu tabaxee kër sëñ Touba yi day wane ne murid yi lépp ñu bëgg a def mën nañ koo def amul benn obstacle bu war a dox diggante même période bi ñu nekk ñëpp ne période de crise la ndax mbas mi feebar bi confinement bi li Touba ci kanam dajale moo ëpp téeméeri yoon li mu daan dajale bien avant crise bi nga xam ne sëñ Touba amul crise donc loolu mooy esprit jaayante boobu ay ca murid lañ koy tuddee ay ca murid ay ca murid fi ñu toll nii même lii ñi nga xam ne moom la membre Touba kanam yi di def jaayante la jaayante physique sa jëmm ngay jël joxe ko bëri na fi ñu toll ni ñi ngeen doon waxal nii mais c'est des entrepreneurs ñoom ñëpp dañoo tëj seen i place ci marché bi c'est des grands commerçants dañ koo tëj ñëw ci mar ci terrain bi di liggéeyal Serigne Touba kenn du leen jox am fay kenn du leen jox crédit kenn du leen jox moyen bu ñuy liggéeyee loolu ñuy liggéey ñoom dañ ko def jaayante booleeg di lamb seen poste di ko joxe loolu mooy yoon wi loolu mooy yoonu murid du yoon wu ñuy xaaraate amul xaar c'est vrai que état moo war a def waaye ñëpp bu ñu waree taxaw di xaar état te ñun ñooy état yéen yéenay état yëf yi mën naa tagga bi kon nag ñun li ñu mën nañ départ su état ñëwee ñu ànd bu ñëwul fekk ñu ci yoon loolu mooy esprit jaayante muy Touba ca kanam waaw wax nga wax nga wax nga wax nga pàcc bu am solo ci diaspora bi vraiment ay jàmbaar lañu bokk nañ ci ñi njëkk soobu ci yoon ay jàmbaar lañu di contribuer nag parce que plus de 60 pays Touba ca kanam nga kon ñu ngi fépp vraiment jaspora bi waa Touba ca kanam dañ leen di kañ di leen sant toujours ndax sori dafa métti mais nga sori ba pare sa xel yëpp nekk ci ci ci ci sa réew nga sori ba pare sa xel yëpp nekk ci Touba loolu sëñ bi beneen affaire la ah diaspora bi seen yitte yëpp ci tubaa ca kanam lañ def amul lenn lu ñu def ci Touba ca kanam ba ñu des ci gannaaw soxna yi nag ñooy jàmbaar waaw soxna yi ñoom franchement Touba ca kanam moom mention spéciale pour soxna yi ñoom ñoom mën ci Touba ca kanam loolu moom lu wér la woon alors sëñ Habib bi daf koy wax waxtu wu nekk kon diaspora bi rawatina femme diaspora yi rawatina soxna yi nekk fii ci biir dëkk bi ñooy mobiliser lépp liggéey bi li ci ëpp ñoom ñoo koy def pratiquement. Euh, comme que soññee la nit ñi boo leen di defal dara day baax ñu xam li nga leen di defal ndax liñ bëgg mooy kenn ku ci nekk la nga am mu néew mu bëri nga ñëw indi ko ne lii maa ko participé ci Touba ci kanam waaw ci la ñu dëkk mesure barrière xam nga yéen a ngi nii bi ngeen ñëwee da ngeen fekk ma yor sama masque xëy na li ngeen di wax <laughs> moo tax ma tekki ko ndax Covid bi Touba ca kanam lim ci def ci ay koppar ëpp na cinquante million bi sëñ Mountakha joxe deux cent millions yi rek cinquante millions te mboolem kër yu ñu quarantaine noonu fii sëriñ Mountakha moo joxoon ndigal Touba ca kanam ñoo leen yor kër gu nekk quatorze jours dinañ la ko yor. ay millions lañ ci daan def ci kër yooyu ba amatul presque kër gu nu loolu it yaakaar naa ne bokk na ci ba pare jël camion LED bi ñu yor di accompagner waa santé ci wàllu sensibilisation bi kon yooyu yëpp ñu ngi koy bàyyi waaye gis nga fi ñu toll nii lancement travaux yi bu nit ñi ñëw dañuy fekk ñuy liggéey pratiquement xëy na peut-être autorité dañuy ñëw rek constaté ne effectivement ñu ngi liggéey waaye mesure barrière yeeg masque yi danañ ko fi indi di ko joxe yooyu yëpp danañ ko bàyyi xel incha allah. bon xanaa di di leen sant yéen ñëpp yéen ñi ñëw aussi pour relayer information bi ngir mu gën yaatu kon nag euh, ay ca burit jaa ngi ñëpp ñëw rek bu kenn xeeb bu kenn yéem ndax kat sëñ Tuubaa ñun la bëgg ñu defaral ko dëkk bi te mën nañ koo defar loolu moom wér de Touba ca kanam wane ne ne mën nañ koo defar bu crise amee ñu ne Touba ca kanam ci weer wi mille francs 1000 francs dajal nañ ci plus de 100 millions loolu yaakaar naa ne firndale na ñun mën nañ ko ba Barack Obama di wax yes we can sëñ Tuubaa moo njëkk a wax yes we can ndax wane na ko ci jëfinam ci doxinam kon tubaa dafa war a wane loolu kon nag ñu ngi tàllal loxo ñëpp xam naa kon numéro orange money bi rek eh, moom la gars yi di jàkkaarloo noonu ci eh, écran bi ñu jël ko participer eh, ci liggéey bi tubaa jëm ci kanam.